Euh, salaamaaleykum ñi ngi nuyu mbooloo mi ñëpp euh, di beral ni yoo euh, ñi fi toogal gouvernement bi à travers ministère bi yore wàllu koom-koom bi di nuyu également les maire à travers le maire sëñ Fallou de Ndiayène Sirakh conseil spécial du président de di beral ni yoo également ñi teewal ministère yëpp société civile ak partenaires technique et financiers ñoom ñëpp nag. ñi ci ëpp ñu bokk ci commité de pilotage muy kuréel bi nga xam ne nii moom lu gouvernement bi teg pour saytu programme bu am solo bi ñuy tuddee PAREM mu jóg pour jàppale askan bi rawatina ñi gën a sonn ci ja mbas mi nga xam ne nii dafa nekk ci àdduna bi yëpp te laal Sénégal PAREM dafa nekk programme bu am solo boo xam ne nii gouvernement Sénégal ci loxo ministère bi yore wàllu njaboot gi jigéen ñi ak xale yi. ci jox na soxna Salimata Diop Dieng jiite ko daf ko indi pour gën a dooleel contribution ministère bi ci li nga xam ne ne mooy près programme résilience économique et sociale mu nekk programme bu am solo bu toll daanaka ci juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ci ay ay million ci xaalis Sénégal gouvernement Italie jàppaleñ ko gouvernement Sénégal itam dugal ci contribution bu toll ci téeméeri million loolu yëpp rek pour ñu gën a jàppale askan bi ci mbas mii ñu nekk programme bi dafay yëngu ci fukki commune ak juróom-ñaar ci Sénégal laal na lu ëpp ñetti junney famille ay njaboot et dugal ci ay koppar lu ëpp euh, daanaka ñeen fukki million ak juróom-benn yoo xam ne dañ ko jagleel ay entreprise yoo xam ne ay ndaw ñoo ko yore mais itam lu ëpp fanweeri million ak ñett yoo xam ne dañ ko joxe ay financement ay groupement ay femmes yoo xam ne nii am nañ ay jafe-jafe yu jóge ci Covid bi donc loolu nekk liggéey bu am solo boo xam ne nii tey comité de pilotage daf koy saytu xool bilan biñ ci am mais également ñu xool ci at yi ci des nan la ñuy lan la ñuy tëral pour àggale programme boobu donc ñu ngi remercier bu baax gouvernement Italie ci jàppale bi di leen également masaw di leen jaale ndaxte jàng nañ tey que ne ambassadeur bi fi nekkoon bi nga xam ni sax daanaka moo joroon programme bi dafa wàcc liggéey ci turu gouvernement Sénégal ci turu président Macky Sall ñu ngi koy jaale gouvernement Italie bu baax baax di leen ko masawu li des nag mooy ñaax comité de pilotage bi ñu gën a